Khadra salaamaaleykum am mbégte ànd ak yéen fii ci seen euh, site Dakar net tey nag ñu ñëw euh, Tivaouane Peulh Euh, fekk si fi ay jeunes war a waxtaanee réseaux sociaux yi parce que seetlu nañ ne de plus en plus les réseaux sociaux sont devenus des moyens de guerre euh, moo tax tey ñu war a waxtaanee réseaux sociaux yi euh, xale yi dañ ciy saaga di ci xas tey seetlu nañ ne compte boo bëgg a rendre sa morom rek ci réseaux sociaux yi nga koy jaaree ba tax na ñu fekk si fi ay jeunes ay xale mu concerné leen ñu war a waxtaanee ñoom réseaux sociaux si loo nekk yow. ah maa ngi sant baax. yaa ngi si jàmm. Ah, jàmm Euh, nan nga gisee euh, sa moroom yi nga xamante ne dañuy nekk ci réseau sociaux di saaga. loolu gisuma loom du yoon moom na nit moom boo nekkee nit moom waroo saaga sa morom sa morom jul waroo ko man moom du ma xamante ne moom mag tamit wala ko loolu du yoon te loolu parents am nañ ci nañ part de responsabilité loolu yoon te nit moom waroo saaga te tamit nga yow nga yow nga ne yow da nekk xale jeune di dugg si réseaux yi bu ñu waxee. kenn bu dugalee fotoom nga dugg saaga nday te xam ngeen ni loom loom tegu loom tegu si yoon man foofu laay waxee lim si kenn si kan lañ ko gisee si kooku si aadama lañ ko gisee na aadama mooy def loolu aadama dañ dañuy dugal foto mu saaga lay ba pare kenn du si wax dara te xale tamit loolu la ñu gis ñoom tamit te nit lu sa mag def moom moo ngay def man loolu laa gisee quoi man dama su may su may lancé moom sama mbokk sama xale yow ñoo xam ne man ñoo tolloo dañ bàyyi saaga si réseaux yi quoi loolu laa gis. yow non non mosuma gis koy dundee mais maa koy gis daal maa gis internet yi moom maa koy gis. yow yaa ngi ci def attention. bu baax kay eh, man kay wóorul na loolu ma koy loolu sax sama yaay dama koy tere na loolu loolu daa nekkul yoon quoi yaa ñu toll ñun ñu toll ñu si waruñu laa téléphone. Ah, loolu moom rafetul wuñ ko waaw loolu ñaaw la parce que sa doom moom waroo ko jox téléphone nee ko dugal si réseaux sociaux yi di ndax loolu rafetul ay kilifa ñooy seetaan buñ duggee gis xale yi di saaga dañuy am lu leen metti trop. waaw te ñun nag loolu moom kontaan nuñ si dara dara dara bu ñu sañoon tamit ñooñu ñoon di def loolu ngir yàlla war a suul ñu bàyyi ko rek te yàlla tax ndax loolu rafetul waaw imaginer benn oustaz Adi Niass war a dugg di seetaan gis saaga yooyu noonu wala keneen ak keneen da koy ñaawlu parce que ñun am nañ ay waajur quoi ñun am nañ ay waajur ndax suñuy waajur dañuy toog di seetaan suñu yaay yi suñu papa yi ñeneen ak ñeneen dañuy toog di seedaan bu ñu duggee si réseaux sociaux di saaga tamit loolu rafetul loolu dañ si war a wax dañ si war a wax du bëri. <coughs> man moom li may wax moom dugg du duggaate tamit ndaxte déjà rek parent yi ñoo koy def ñoom ñooy jox seen doom yi téléphone ñuy manipuler. yow daal responsabilité parents laa ko teg moom ndax ñoom à l'âge de 18 ans sax waruñu woon jox seen doom yi téléphone ñoo di jox téléphone ñuy manipuler lu ne ñu koy def si internet bi loolu du yoon. loolu moom du yoon moom ànduma si moom comme sama xarit nu mu ko waxee rek Adamo. kooku moom daana ko moom kenn mënalu ko dara moom lu ko neex lay def ku dugal mu saaga publier say photo moom boo gisee nit bu nekkul si yoon sax moom mun nga ko comprendre mais jarul nga koy sulil ay motam def genre yooyu loolu moom laa moom li may wax. waaw ñi nga xamante ne dañuy nekk ci benn tarixa ba pare di saaga sëriñu ñeneen ñi nag loolu loolu. loolu moom c'est de la manque de respect loolu moom boo amul respect rek ngay def yooyu man adduna bi damaa yëngu quoi ndax loolu moom billaay bu fekkee ay jeunes yu dëggu duñ ko def moom. tàppet rek ay nekk di saaga di wax lu ko neex mais xam nga ne yow franchement boo dajeeg moom nii amoo fitu waxoo ko direct. parents am nañ si ay part de responsabilité di jox seen doomi téléphone comme tey xale moom 12 ans nga ne ko ba muy nga jox ko benn téléphone. day concentré wu mais après bu amee téléphone da ngay gis xale dem ay moins 6 sur 20 loolu dafa ñaaw dugg bi di invent di invité waale ay plage wala ay appartement di dugg di def lu leen neex kon lu xewoon daaw maris dafa ñaaw quoi di jégaluwaat. yow daal yaa ngi ciy bàyyi xel waaw maa ngi ciy bàyyi xel moom. mosoo gis ku ko dund. non gis naa ñu koy dund de moom. Hmm. ba ci tuwaan pël bi sax yenn saa yi da ngay gis ci kaar yi mooy loolu quoi. Hmm. ah am fii. non day am fii hmm. mhm. yow yaa ngi ciy bàyyi xel loolu maa ngi ciy bàyyi xel de moom wax dëgg fa yàlla. maa duñ la yóbbaale. <laughs> non man aw ma liberté boobu noonu. non aw ma liberté boobu. xale yooyu moom lu mu leen wax di leen ko ñaan te tax rek buñ di leen ñaan di leen ñaan suñ seen ñu bàyyi lu ñuy def ndax ñoom dañaa yor seeni waajur imagine buggoo nit tiim sa waajur di ko saaga kon bul tiim waajur jaambur di ko saaga loo rafetul si dégg-dégg ak si gis-gis waaw loolu la ñu leen ñaan ngir yàlla war a suul ñu bàyyi ko ndax rafetul ko réseaux sociaux yi ñëpp a siy dugg ñëpp ñëpp si siy dugg waaw nañ leen ñaan ñu bàyyi ko te yàlla tax waaw man loolu laa am lu may wax. parce que yéen jeunes yi seetlu naa ne seen groupe yi ngeen di àndal parfois di influencer si yenn yi koy def ndax léeg-léeg a saaga mais da nga sa morom boo xam ne day tàmm saaga saaga saaga ba yow da ngay dem ba da ngay adapté wu di saaga. waaw kon man mii tamit dama doon faral di saaga di ànd ak ay saagakat mais bu ma demee ba ci biir di xam samay morom jour di ànd ak samay morom jour ñooñu ma classe leen guddi dañ may fekk suñu kër di bëgg ñu bëgg ma jël mais a yàlla ma yàlla jàppale ma bàyyi ko. gars yi suñu biir gars yi dañuy saagante suñu biir gars yi dañuy saagante loolu tamit loolu du yoon waruñu saaga mais daal nit moom boo nekkee si internet moom da ngay da ngay moytu lu bëri quoi da am na xam am benn boy sax am na benn boy si fii la nekk saa yi moo duggee gars góor jigéen la nga wax gaa saaga góor jigéen ndax mu soloo te loolu du yoon nit waroo ko saaga na joxo ko yëre bu mu sol tamit bu ko saaga xam nga loolu laa wax ñun bàyyi loolu moo gën quoi.

si doom lu mu saaga fekk yow bi ngay dóor yaa ngi koy saaga ndey si dóor bi yow yaa ngi koy saaga nu muy bàyyi saaga loolu mënul nekk. nit su déggee si TikTok bi wala si YouTube bi di saaga nga koy may ay vues yooyu day day gën a saaga rek mais su déggee di saaga moom kenn kenn lii nii ko sax dina bàyyi li muy def waaw. nit même su defee dara si YouTube bi sax mais waroo dugg foofu di ko siiwal xool lu muy def nee dafa ñaaw di dugg naan xool la loo simbeewu di wax yooyu. am na xale yoo xam ne suñu gisee loolu même même suñu xamaloo affaire genre yooyu sax dañ koy foofu lañ koy xamee mu dugg di naan ay ñoom loo simbeeku nii di wax wax dafa ñaaw. kooku daal loolu nga gis daal moom moom loolu laa gis daal. Euh, loo leen di conseillé seen morom yi. ah dañu leen conseillé moom ñu bàyyi ko yaa am gën nekk nit man ku nekk sama morom ma lay conseillé bàyyi loolu man daal loolu moom du man loolu d'accord ma si ma si. yow lay wax sa morom man sama morom maa ngi leen naan bu fekkee da ngeen si football bi leen si football rek yàlla baax na mais en tout daal tux ak fréquentation bu bon ñu dugal si ne. ah di jaajëfal sama gars yi sama mbokku ak samay morom yëpp mais tamit di conseil ñoo xam te ne ñoo doon ànd ñi te ñuy te ñuy jàpp ni 15 mooy métier ak dugub daaru nañ ko bàyyi quoi waaw loolu laa gis. ah man moom sama morom rek man tamit di naan nañ bàyyi nañ topp seen nañ bàyyi yàq seen avenir yi daal waaw dugg si YouTube di saaga yooyu rafetul ak wala toog di gàncax yooyu rafetul quoi bu nekkee xale moom dafa li fa xale rek waaw nooy jëmee mag nga demee ngay jëmee noonu mag mais bul yàq sa avenir loolu laa di kontaan tamit si dalal bi ngeen ñu dalal waaw tamit di si kontaan bu baax a baax a baax ndax lii dafa neex ngeen jugee feneen ñëw seet si ñu di ñu poser ay questions ñu leen di tontu loolu rek dafa neex at yëg-yëg bi yàlla na leen yàlla fay waaw dafa leen yiw